Élection locale 2022 si département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol une initiative bu am solo fa seeni ci candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon ou wala départemental des C'est ni ay plateau ay émission ay direct ci concept bi ñu du pays askan wi mbokk mën ngaa gaaw saisir les opportunités moo lay may visibilité di nga ci ànd ak ñun ak ay moyens techniques yu ngay am en direct sur plus de 20 sites internet mais également après le direct di nga am intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay proximité ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën a gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnels si mbooleem wàll lépp lu ngeen itteewooti si wàllu wunu mel couverture médiatique appel b. jóg taxaw tem ngir ànd ak yéen bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2022 si département de Mbacké appel b. da see soobu ba jeex tàkk ngir gindi askan wi mais également gunge candidat yi